بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نكو باخ وانا داف ген تي waxtu wu ne muy di mm, waxtaane doxinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fan yi nu weesu nu waxtaane woon mm, fatxu Makka tey jii kon ñu ñëw ci ni nu ko baaxoon a defe di andi yeneen marxala yi ci sës marxala bi ñuy waxtaane nag mooy marxala ñetteel bi te mooy marxala bi mujj ci marxala yeneen dundug yonente bi salallahu alayhi wa mu mel ni marxala bi dafay indi résultat yi woote bi meññ woote bi yonente bi résultat yi mu meññ moom la bi di leeral ginnaaw bu mu jihaatee jihaat ju yàgg ak coono yi ca aju ak fër-fër yaag xare bakkan yi ca dee diirub ñaar fukki at nangam résultat yi ci am moom la marxala bi di teewal tey mel ni fatu màkk nag buñ ko xoolee mooy li gën a rëy ci lu jullit yi ci biir wote boobu ci at yooyu ndax ci ginnaaw ci fatu googu ci la jaww bi arab jaww bi jasiratul arab soppi ko mu mel ni fatu gi dafa doon ab barrage bu dox diggante la ko woon ak li ci ginnaaw ab barrage la ci moom fatu màkk Euh, ndax Qurayshin ci ni leen arab yi daan xoole ñoom ñoo doonoon ñi aar diini ji doonoon kilifay diini biñ demee ba fataxu Makka am waa Qurayshin nangoo wommatu topp ci gannaaw yonente bi loolu dafa mel ni dafay déclaré ni kon jaamu xiram jeex na tey ci jëseetu la arab kon am na lu muy tekki marxala bi kon dañ ko maanaam ñaar marxala bii nga xam ne mooy mujj dundu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbir dañ koy séddale am na benn benn ci jihaad yu fi am la ca des nag mooy euh, mbooloo mi fàq diñ doon fàq di dugg ci diine ak doole bu dañuy jiital euh, jihaad ji nga xam ni euh, moo fi amaat ginnaaw fatxu Makka bu noppee ne doole andi nit ñi ni ñu doon fàqe di dugg ci ak doole mu mel ni ginnaaw bu fatxu Makka jàllee xasuma bi ci sisaat mooy gaswatu xunayn ak xareb xareb xunayn ndax fatu Makka bi leen yonent bi bettee ñoom waa Makka ak dole doole joj xool nañu ba gis nañ xamuñu fa ñu koy jaar dara sësu fa lu weesu ñu nangoo womatu dugg ci biir diine islam nga xam noonu la ci biir Makka ñu ñëw ak moom ñoom ñëpp daal di koy nangul doon woote waaye nag am na ci lenn ci arab yi ñoo xam ne loolu seen seenu rëy daal mayu leen ñuy wàcce noonu rek euh, mu ña jiitu mooy girug hawazin ak saqif ñun ñoo jiitu yeneen giir topp si leen girug nasr ak jashm ak saad ibn bakar ak ñu bokk ci bani hilal ñëpp ñu ñëw fekk si ñaari giir yooyu muy hawazin ak saqif ñu ñu daje ci kër ku ñuy wax malik ibn awf waxtaan ni daal buñ joxee suñu bopp nii nañ jóg guerre moom ndax mënaluñu dara yaakaar nañu daal léegi war nañoo mën a guerre ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ demee ba doogu ci loolu euh, ki nga xam ne mooy njiit li te mooy Malik ibn Awf xalaat bi mu am mooy da leen a digal ni bu fi kenn bàyyi dara ne ñëpp jël seenu njaboot jël seeni jigéen ak seeni doom ak ak seenu seeni alal indaale ko def noonu ñu daje fu ñuy wax aw taas aw taas nag aw xur la wu nekk ci peggu Xunayn agul Xunayn eh, diggante moom Màkka mat na fukki kilomètre ak ak nangam jegeen ñaar fukki kilomètre agu ci ci ci peggu Arafat foofu la aw taas nekk fa lañ dajalo biñ dee ba aw taas am na mel ni mag mu ci nekkoon ku ñuy wax Dureydin ibnu Simma kooku xam mbiri ger la am expérience waaye mel na ni dafa gumba woon daal di wax ne xuru ngeen nekk ni ñu ne ko ñu ngi ci xuru aw taas mu ne waaw waaye damaa dégg lu mel ni xale yi jooy ak ak gilem yuy bëmb ak mbaam yuy ŋaax ak xar yi mem ñu ne ko waaw Malick Malick dafa wax ni na ñëpp indaale seeni njaboot ak seeni seeni alal mu daal di wóolu Malick ne ko loo jublu ci li nga def mun ko li ma jublu mooy nit ñi ku ne rek défendre sa sa alal ak sa njaboot moo tax man leen bu fi kenn bàyyi dara dafay bëgg ñu xeex ngir ñu xeex ak jom ngir défendre loolu yi topp ci mu ne ko yow xam nga ne nit ki war a daw loolu mun ko gàllankoor kañ xas ba di ko daq jur gaag alal ja day daw bàyyi ko fa waaye ñooñu mënuñu ko te daw ni ko tey nga war a bàyyi jur gi ak njaboot gi ca kër ga te ñëw xeex si bu yàlla dogalee nga gañe ñu fekk si la buñ la gañee sa waa kër mucc boo demee fekk leen fa mu ni déet loolu du ko def daal ne ko dangaa màggat sam xel màggat li nga wax du ma ko def bi mu waxee mbooloo mi ba mbooloo mi nar na nar ànd ak moom euh, moom Malick ñu leen bu bu ngeen ma topp de danaa fab sama jaasi ji dësandiku si ba mu sart sama digg ginnaaw mooy danaa xaru dar léegi nag pexe amul ñu ne ko kon topp nañ la ci li wax léegi nag mag moom mi joxe woon xare boobu mooy Durayn ibnu Simma daan man de kon xare bi xare la bopp fekkewu ma ko wóosewu ma ko noonu Malik yebaloon mbooloo mu mu doon dem di ko seetali euh, mbiri jullit yi ba xam fu ñu toll fu seen wàccaay toll ba ñëwee di lox di pat-pati mu leen lu mu dal ñoo dañoo gis ay nit ñu weex tàll war ci kaw fas yu weex bañ leen gisee lanu lii ñu dal dal mënatuñu tey suñu bopp fekk yonent bi yabal ku ñuy wax abu hadrat al aslami ne ko da ngay dem dugg ci seen biir ci biir giiru saqiif ak hawaasin xool leen ba xam ci luñ nekk ñëw andil ma seeni xibaar ba koo ko demee yonent bi bisub gaaw di juróom benn fan ci yoru sawaal mu jóge màkk ànd lu mat fukki junni ak ñaar fukki junni yi ñoo àndoon ak moom jóge Madina di fatxu si ñaari junni yi mooy mbooloo mi e, jëbbuloo biir màkka jaayanteeg moom fukki junni ñaar nga xam na am na ci ñoo xam daanaka dañu doon door dugg ci islam xamaguñ ci sax dara daanaka yente bi abbu Safwaan ibnu Umayya mu abbu ko lu mbubbi koom Makka mu bàyyi fa ku ñu wax Xattaab ibnu Usayd ni ko mu wutu ko ca ngoon nga rek am benn waay bu ñëw ne man de yërëm naa ci xur wi waaye seen naa fa waa Hawaasin njurug Hawaasin gépp ànd ak seen jigéen ak seen i doom ak seen i seen i seen i xar yaak bëjë maam bàyyiwuñ seen àll yëpp nga ñu ngi ci wetu xunee ni bi mu waxee loolu yonte bi muuñ ni ko loolu de xéewal la gu yàlla nar a defal jullit yi ëllëg allah mooy loolu ñu indaale ci alal xéwal gu yàlla nar a xéwal jëlee di képp lay rek noonu bañ xëyee ñu jaar ci yoon wi jëm Xunayn jëm ci barab boobe wax nañ romb nañu ci yoon wi ak dem gu gu naat ni goo xam ne arab yi dañ fi daan aj seeni ngànnaay ak di fa rendi waa waa arme bi ñu yonente bi li ñu bëgg nga defal nu zaatu anwaat lañ ko daan wax comme ni ko yéefar yi amee li ñu bëgg nga defal nu ko noonu ñu am ko ñu am garab goo xam ne dañ koy tuddee zaatu anwaat yonente bi ne allahu akbar yéen di wax ngeen lu mel ni la niti Moussa ya waxoon muy ijaal lana ilahan kama lahumu alihatun qaala innakum xawmun tajhalun tajhalun daa ne lii de mooy sunna si ña leen jiitu woon da ngeen leen topp ba buñ duggee ci paxum bët sax ngeen dugg fa waaye wan leen ni leen fekk ñu créé ay xiram di ko jàmm nga ngeen naan defal leen lu mel noonu daal euh, door gi ñuy door dugg ci islam waaye du xalaatu diin noonu bi ñuy demit mbooloo mi bari na am ñu wax ci nit ñi ne ah tey de kenn mën noo ma waaye loolu it ba tey euh, neexul yonente bi sallallahu nit ki gëm benn sukkandiku noonu la armo islam bi demee ba àgg Xunayn ña fa àgg guddik àllarba euh, di fukki fan ci weeru Shawwal waaye ba ñuy àgg it na Malik ibnu Awf jiitu leen fa ba programme ab at moom dugal leen ci biir xur bi tasaare leen ci yoon yi ak ak ak jaarukaay yi jullit yi jaar pour dugg ak xur yi ak làqutukaay yi ni leen léegi da ngeen di taxaw saa bu ñu dugg see rek na ngeen leen fettandoo ak doole fett yi dal ci seen kaw doole bu ngeen fettee ba fett yi takkar naa si ngeen ngeen fab jaas yi dalandoo ci seen kaw doole maanaam na leen bett ñu waajal loolu jullit ci fajar gi bu dégg àllarba ci fajar yonent bi programme arme bi ni aca bismillah ñu jàll bi dugg ci biir biir xur wi mu mel ni fett yi mel seen kaw ginnaaw ñu songandoo leen ak doole ak jaas yi loolu ak ak ku ngëlamte ñu daal di wëlbati ko daw kenn gisul sama am comme mi ngi door dugg ci diine léegi kéegul dëgëragul mu daal ni oh daw gi ma gis de baxarul ahmar moo leen di moo leen di fekk te meerul si nañuy fekko ji am keneen ku yoox ci oh njabar gi yàqu na tey fekk ne ba tey mooy mbooloo mi nga xam ne jaayante nañu ak yonent bi ci kaw doole nii waaye nag islam duggagul ci seen ndijoor gi kaw ne ñëw leen nit ñi ñëw leen fii ana rasulullah ana muhammad ibnu abdillah di woote waaye ñu néew fete ci muhaajiroon yi ak lé ak ñenn ci waa këram ñoo des fa moom waaye mboolum jullit ñi mépp duñu fàq daw foofu yonte bi feeñal fi ak njàmbaare loolu ndax dafa dal di war ci ak baxlaam di avancé jëm ci yéefar di wax ne ana nabiyu la kazib ana ibnu abdil muttalib abu sufyaan ibnul xaaris mi ngi jàppoon ci laabi laabi gileem gi abbas it jàpp ci dëgalu gileem gi ñuy ñuy fekk gileem gi bañ mu gaaw bañ mu gaaw a ci yéefari ngir eh, ragal ragal tiit ci jëmi yonte bañ dara lu lu ñaaw di ak si ci kaw noonu yonte bi wàcc daal di ñaan yàlla ne allahuma anzil nasrak yàlla na nga wàccee seen dimbal daal di digal abbas mu woote ci kaw fekk ku xumboon kàddu la ba mu wootee mbooloo mi di di ñëw di wuy si di wuy si ba ma téeméeri ne daje fi ñu tàmbali ak jaakaarloo ak man ñu tàmbali waate xeex nee na ma wër bati woote bi jëme ko ci lansaar yi daal di woote ca kaw nee noonu la mbooloo julli di dabante di fekk di fekkante ba mbooloo dajafi ñu xeex xeex bu tar bi mu taree yonent bi daal ne ah, léegi de xeex bi tar na daal di jël ngëbub suuf bi mu jëlee ngëbub suuf daal di leen koy sànni wax la mu waxoon ci xarab badar saahatil wujuhu mu mel ni nga boobu bi mu ko sànnee ku ne si ñoom rek am na ci fepp suuf yi dugg ci sa bët diir bu gàtt lañ am ñu gàññe leen nga ñaay lu mett ñu daal di daw ñu dàq leen giirug saqiif képp rey nañ ci lu mat juróom-ñaar fukk mboolem lañ dajale woon ci ay alal ak ngànnaay ak jigéen ak ak jur lépp jullit di dajale ko mànk ngañaay loolu yi ñu leen jëkk gañe bañ dawoon ak dellu si giñ dellusiwaat ba gañewaat ci biir xare bi moom la alquran naan tudd ni wa yawma xunaynin is ajabatkum kasratukum falam tugni ankum shay'an wa daaqat alaykum al ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin summa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin wa anzala junuudan lam tarawha xazab allazina kafaru wa dalika jazaul kafirin ñun aaya boobu di wax ne bisub xoneenin seen bariwaay daf leen yéemoon waaye bariwaay bi amul leen benn njëriñ ndax da ngeen wëlbati ko daw yàlla wàcce ak dalam ci ab yonentam andil leen eh, ay soldaar yoo xam ne gisu leen leen ñu dàq yéefar yi te loolu mooy payu yéefar yi noonu bi noonu dawee am ci ñuy kuréel bu jëm Taif ñenn ñi dem fa ñuy wax Naxla ñenn ñi dem fa ñuy wax Awtaas yonente bi yable Awtaas yebal fa mbooloo ñu dàqi leen ka jiite woon mbooloo moom mooy Abu Amir al Ashari yi leen dàqee ba dab leen ab xeex jox seen diggante ñoom yéefar yi di bu gàtt ñu gañe leen yéefar yi daw waaye nag ci xare boobu ci lañ reye Abu Amir al Ashari yi moom yonente bi jiite loon ci diggante soosu ñenn ñi dem nax la it am mbooloo mu leen dàq ba foofa lañ reyee euh, Duraydin ibnu Simma màggat moom nga xam ne moo dese woon expérience expérience guerre di joxe ni ba tey foofu lañ ko reyee ci mbooloo ma ci ma jëmoon nax la waaye nag la ëpp ci mbooloo yi dañoo jëmoon Taayif foofu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo fa demal boppam ginnaaw bu mu dajalee màng mi dajale woon mépp te màng mi lañ dajale woon ci ay màng bu dee ci ay nit rek juróom benn junni nit ci diggante ay xale ak jigéen giléem yi ñaar fukki junni ak ñeent ci ay giléem bu dee gàtt ci diggante xar ak béy ñeent fukki junni dajal nañ ko ci bu dee ci xaalis xaalis espèce ni ñeenti junni ogiya ci xaalis dajal nañ ko ci yonte digle ne nañ ko dajale téye ko ci fa ñuy wax al jiraniya dénk ko ku ñuy wax masangot ibnu amr al xifaari yi ginnaaw bu mu jógee ci xarit Taïf la ko door a séddale wax ni ñu jàppoon am na jigéen bu ñuy wax Ashima bintul Xaaris as-Saadiya moo doon mbokkum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci nampale waaye bi mu ñëwee ko indi ci yonente bi mu xamal yonente bi boppam yonente bi xam xam ko ci ay mandarga daal di koy lalal lal laltaay mu toog ci mu teral ko daal di koy jéggal ñu delloo ko kër ndax bokk boobu ndox seen diggante moom yonente bi sallallahu kon xasootu taayif moom dafa mel ne aw daggeet la ci xasootu xunayn ndax mbooloo mi ëpp ci giru hawaasin ak saqiif dañoo dawoon jëm fa moo tax yonent ci demal fa boppam ginnaaw bu daje dajalee màng mi ci Jiraani ya eh, ci weeru sawaal ci menn at mi eh, la daal di jóg jëm foofa taayif ba mu demee daal di koy encercler fekk ñu dugg ci biir sange yi sange wu mètre mètre yonent bi encercler ko wër googu mu ko wër nag gaw gi dem na ba mat fukki fan ak juróom am na ñu ni am na ñu ni ñaar fukki fan am ñu ni sax am ñu ni sax am na fa lu mat ñeent fukki fan gaw leen léegi ñoom ñu nekk ci kaw di sànni seeni fet sa fet yu metti fet nañ ko jullit yi ba gaañ leen ba rey nañ ci lu mat fukki nit ak ñaar ci jullit yi waaye sange si te ticc kenn mënta fexe ba bëtt ko biñ demee dem dem dem ba mënuñ ko bët yonte bi diisoo ak wax Nawfal ibnu Muawiya day lii ni ko lu ci pexe mu ne ko ñi ma gis day kund nekk ci biirum pax lañ boo fi saxee dañ ko jàpp waaye boo demee du la wàññi dara yonte bi daal doogu ci ne kon nañ leen bàyyi te dem ba ñu moom euh, noonu lañ leen bàyyee yonte bi daal di wax Omar ibnu Xataab ni ko waxal nit ñi ni leen ëllëg dañuy ñibbi Omar wax ci kaw ne yonte bi nee na ëllëg dañuy ñibbi am ñu ne ñibbi di leen bàyyi ni yonent bi daal ni Omar nee leen ëllëg nañ xëy nañ xëy ci xeex bi ñu xëy ci xeex bi waaye buñ xëyee toogaat encerclé ba noppi ñee fett yi métti na gaañ-gaañ yu métti métti dal leen ci yonent bi newaat Omar nee leen ëllëg dañuy ñibbi ba boo Omar déclaré ni ëllëg dañuy ñibbi ñëpp tàmbalee takk seen bagage yonent bi ree ree ngir loolu waaye nee na bi ñu laxasee ba noppi nag yonte bi nii leen nii leen nii leen aayibuuna taa'ibuuna aabiduuna li rabbina xaamiduuna ñu ñëpp ñuy wax loolu ñu ne ko yonte bi ñaanalal yàlla saqiif bëgg mu ñaan yàlla mu alag leen waaye mu ñaan ne allahumma ihdi saqiifan wa aati bihim yàlla yàlla na nga leen gindi te andi leen ñaan ko wula mu demee fa ñuy wax Jiraniya mu am fa fukki fan ak nangam di séddale di séddale màngit mañ màngoon wax nañu sax xaar na xaar na ab diir ni ngir doon séentu ni giirug Hawaasin danañ ñëw tuub si te buñ tuub see ñu man deen a jox seeni alal ak seen ak seeni seeni njaboot waaye dikkuñ biñ dikkut nag mu tàmbali séddale bi muy séddale mi ngi jëkkee ñi ñi nga xam ni dañoo dugg ci islam waaye xamaguñ dëgg-dëgg islam maanaam ngir euh, politique gu euh, xëcc seen i xol convaincre leen pour ñu gëm islam ñooñu di leen ciy sédd cër yu rëy rëy euh, ndax Abu Sufyaan jox na ko ci xaalis ñeen fukki ñeen fukki ugiya jox ko téeméeri gi dem bu ko ko sama doom Yasid yonte bi jox lu toll noonu Yasid jox na ko téeméeri gi dem ak ñeen fukki ugiya mu ko sama doom Muhaawiya mu jox Muhaawiya lu toll noonu noonu mu jox Safwaan ibnu Umayya téeméeri gi dem joxaat ko yeneen téeméer joxaat ko yeneen téeméer nga xam ñetti téeméeri gilem jox na ko xaaris ibnul xaaris ibnu kalda mu jox ko téeméeri gilem naka noonu yeneen nit ci niti xudaysin mu jox leen téeméer par téeméer ñi mu jox leen juróom fukk par juróom fukk ñi mu jox leen ñeen fukk ñeen fukk ba dañoo mujj naan Muhammad ni muy joxee regalul ak ñàkk nee na regalul ak ñàkk léegi kaw kaw yi comme dañu door dugg ci islam te alal noonu la leen di ñore ñu bari ci yonent bi tànc ko tànc ci ba mu denc ak garab ba làmbaay bi mu làmbaay woon sax daf mujj rot mun leen jox leen ma sama làmbaay giñ naa ci yàlla mi yor sama bakkan nii lu toll nii garab yi tixaama su ma ko yoroon ci ak jurit dinaa ko séddale te du ngeen ma fekk ma doonum nay mbaa ma dib ragal mbaa ma dib fenkat yëpp du ma daal di dem ba ci peggu gileem ak gileemam mu nocc ci benn kawar ni leen li ngeen am ci ay xéewal soxlawuma ci lu toll nii lu dul lu dul xumus bi ci màng mi ngeen màng soxla wu ko te xumus boobu yëpp ci yéen laa koy delloowaat ginnaaw ba mu joxee ñoo ñi nga xam ne nag ñooy ñi doon door dugg mu jiital leen la wax euh, Zayd ibnu Saabit mu dajale la ca des te dajale nit ñi mu di leen ko seddale léegi benn mu jox la ñeenti gileem wala mu jox la ñeent fukki gàtt ñeenti gileem mbaa ñeent fukki gàtt noonu la ko doon seddale ku ci doon ab faaris nga xam da ngaa war mu jox la fukki gileem ak ñaar wala mu jox la téeméeri gileem euh, téeméeri xar ak ñaar fukk noonu la ko noonu la doxalee maa ngi léegi nag loolu politique la politique bu xereñ la la doxe waaye ñu bari mënuñ koo woon a dégg nag ci njëlbeen ba am na sax ñu ci ñaxtu di wax ni am na sax am na sax naa fekk bu ñëw bu ñëw ni haadihi qismatun bi urida biha la am na koo xam ne ab naafiq la ni ni lii ab sedd la boo xam ne jubluwuñ ci jëm yàlla li wane ne daal yonent bi daa am ñu faral léegi waaye li muy def tëggu ko ci yoon ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa mer ba sédditu jéegi jóg nii ne waman yattaqillaaha ay nasaytu ana suma mooy yàlla kan moo koy ragal ndax wan leen rek ni lii mu def lépp ci kaw ndigalu yàlla ko teg lu leer na lu lu wér la waaye dañ ko dul mën a dégg ba am na ci lansaar yi ñoo xam sax du ñu naafiq duñu dara waaye nag naqari na leen bañ xaw a mere yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi seen kilifa di Sa'd ibn Mu'aaz Saad ibnu Ubaada mooy kilifa ak euh, Xasraj moo ñëw ci yonent bi wax ko ko ni ko ñi daam ñu jaaxle ndax dañoo gis li nga séddale lépp ci biir Quraysh nga ko joxe ak giiri arab yi te lansaar yi amuñu ci dara ba am na ci ñoom ku wax ni ah Muhammad ni di tey yonent bi da tey nag daje naag waa këram gëm nañ sax ne ab yonent waaye téwdal am nañ ci jaaxle ci seen xol yonent bi ni Saad yow ana foo nekk foo ci nekk yow ñu ko wax dëgg yàlla kenn laaj ñoom nag mu ne ko boo demee nga dajaleel ma leen mu dem dajaleel ansaar yi ci benn ngédd léegi am na ci benn benn muhaajiroon yi fa dugg mu bàyyi leen am ñoo xam ne bañ ñëwee da leen tey leen tey ñii la yonente bi sax biñ demee bañ daje yonente bi ñëw wax ak ñoom ne leen yéen dafa am wax ju ma dégg ci yéen ak jàpp gu ngeen ma jàppal ci seen xel lu ngeen ma jàppal ci seen xel waaye ndax fekk moo leen woon ngeen réer yàlla gindi leen ndax fekkuma leen woon ngeen ñàkk yàlla woomalal leen ndax fekkuma leen woon ngeen di ay noon yàlla boole seen xol ñu ne ko ah kay yow yonent bi yàlla bi yàlla day moonu defal xéewal defal ñu ngëneel mun leen nag tey maa tontu ñu ne ko ah bi yàlla bi lu ñu lay tontu mun leen bu leen neexoon ngeen tontu te da ngeen wax dëgg bu leen neexoon ngeen ne bi ngay ñëw dañu laa weddi ñu dëggal la bi ngay ñëw dañu laa seetaan ñu jàppale la bi ñëw dañu laa dàq ñu la ñu fat la bi ngay ñëw dangaa ñàkkoon ñu dimbale la léegi bu leen neexoon ngeen tontu ma lii te da ngeen wax dëgg waaye ni leen ndax da ngeen di mer ci poñaxtiitum poñaxtiitum adduna moo xam ne dama koy dama koy nammee xoli xoli ay nit ngir bëgg ñu dugg ci islam yéen ma bàyyee leen ak seen islam ndax loolu da leen xar naqari ndax ndax bëggu leen nit ñi yóbbu xar yi ak gileem yi te yéen ngeen yóbbu yonent bi yàlla ci seen wax la yéen ngeen yóbbu ma man ci sama jëm bopp ni leen giñ naa ci yàlla mi yor sama bakkan ni dogal ko nag gàddaay gi kenn ci yéen lay doon te it nit ñëpp buñ sóoboon ci aw xur lansaar yi sóobu ci aw xur xur wala lansaar yi sóobu lay sóobu daan yàlla yal na nga yaram lansaar yi yal na nga yaram seeni doom yal na nga yaram seeni doom yi doom dana ñu daal di jooy jooy bañ jooyee ni ko lay yaanu gën a lépp nangu nañ laa defub cër te beneen cër bu ne ñu bàyyi ko kakum noonu la ñu waxee ba tasaaro waaye bi loolu jeexee euh, Hawazin ngir googu nga xam ne yonte mu ngi doon bàyyi xel ne xëy ne dañ jëblu si daal di yónnee ab délégation fukki nit ak ñeent ñu ñëw di jëblu si dañuy joxe seen bopp Zuhair ibnu Sird moo leen jiite woon ba ñëwee jëblu ni ko ngirub Hawazin ñoo ñëw di jëblu si ñun ñu ñoo leen fi représenté daan ni ko waaye ñi nga jàpp nag sunuy ndey a ngi ci ak sunuy mbok ak sunuy bàjjan ak sunuy ndey yu ndaw te loolu gàcce rek doon ci nun yante bi ni ah man di ñi ma àndal ñi ngi nii wax ji ma gënal ci wax nag mooy wax ji ci gën a dëggu léegi seeni alal ak seeni njaboot lu leen ci gënal maanaam benn ñu delloo leen alal ji ñu delloo leen njaboot gi muy jigéen ñi xale lu leen ci gënal ñu ne ko ñun njaboot gi sunuy doom ak sunuy soxna duñ leen yemale ak dara yonte bi leen kon su ma julee tisbaar noppi fekk leen ma fii sàkku li ngeen sàkku ba mu julee tisbaar ñu fekk ko fa bañ waxee ba noppi yonente bi daal ne man de li ma ci am ci seenu njaboot maag ba nee Abdul Muttalib jox naa leen ko danaa leen laajal nit ñi rek ba xam ba lu ñuy def léegi muhaajiroon yi ak lan lansaar daal nu ñuy itam li ñu am jox nañu ko yonente bi kon ba tey gi ñu ko jox yonente bi yonente bi daal leen koy jox léegi aqra ibnu xaabis al aqra ibnu xaabis moom ne man de maag banoo tamim ñun déedéet ñun joxewuñ suñu wàll oyey ne ibnu xesm daal di wax ne ma itam maag banoo fasara joxewuñ suñu wàll xabaas ibnu mardas daal di wax ne maag banoo salim ñu itam joxewuñ suñu wàll banoo ñun de li ñu am jox nañ ko yonent bi xabaas ni leen kon da ngeen maa manqué yonent bi leen ñii dañoo ñëw jëblu si bi yeexe naa lool ngir jàppoon ne dinañ ñëw doon leen bàyyi xel léegi tànnloo naa leen seeni alal ak seenu njaboot lu leen ci gënal ñu ni seenu njaboot a leen gënal damaa bëgg ku ci am dara boo ko mënee jox ngir yàlla baax na boo ko mënut it kenn kenn du xëccoog yow sëb cër waaye ku ko ci mënut it na nga xam ne ni mënoo ko te jox leen ko luñ njëkk amaat ci am màng cër bu ci ne dinaa la ko fay juróom benn cër mun leen benn ci ñaar yooyu ku ko joxe ngir yàlla baax na ku ko nanguwut a joxe léegi sëb cër yaa ko moom waaye li ñuy bëgg nga joxe ko bu ko defee luñ jëkk amaat benn cër bu ne dinaa la ko fay juróom benn ne ko noo ngi ci loxol yàlla ak yonante bi waaw dañu ko ñi ngi ci loxol yonante bi yonante bi ni leen ba léegi li ngeen wax ni xamewuma ci ki nangu ci yéen ak ki nanguwut dem leen ngeen waxtaan seen mag mag ñi ñëw leer na ma ngeen jàpp bañ leen bañ waxtaanee nag moo mel ni dañoo dëppoo ci daal nañ delloo ñi ci jël ci jigéen ñi ak xale yi daal mën nañ leen jox ko yonante bi ñoom ñëpp ñu joxe lañ yoroon Euh, ba mu des ku ñuy wax xuyay ne ibnu xisn moom yoroon na ci genn màggat gu jigéen nangu ko delloo téye na ko ab diir door ko delloo si yonte bi dal leen di woddu ñépp dal leen di bàyyi ñu dem bu loolu jàllee nag ginnaaw mu séddalee màngim ba noppi ci Ji'irraana la daal di armal daal di umra daal di dellu Madina euh, teg ca Makka ka ñuy wax Xattaab ibnu Usayd Madina nag ba mu fay dellu juróom benn fan moo des ci weeru zil qaada ci atum juróom-ñett ci gàddaay dee Madina ba toog nag ba tey euh, mu programme ndax xam nga mi ngi dellu ci mujj weeru zil qaada zul xijja moo fi muharram dugg si bu weeru muharram dugg see la jël ay délégation ay nit di leen yabal ñu jëli asaka yi ka ñu wax Huyayna ibnu Hisn mu yónni ko ca bani tamim ngir mu war a jëlee asaka yi mu yónni ko ci aslam ak Ghifaar ñaari giir pour mu jëlee asaka yi ka ñoo xam Abbad ibnu Bishr al mu yebal ko ci Salim ak Musayna ngir mu jëlee asaka yi Rafi ibnu Makis mu yebal ko ci Juhayna ngir mu jëlee asaka yi Amr ibnul mu yebal ko ci bani Fasaara ad-Dahhaak ibnu mu yebal ko ci bani Kilab Bashir ibnu Sufyaan mu yebal ko ci bani ibnu Latayba al asdi mu yabal ko ci bani Sufyaan al muhajir ibnu abi umaya mu yabal ko sanaa sanaa nag ba mu fa demee kañuy wax euh, al aswad al ansi yi moom dafa dafa lànk mooy ki woote woon ak nubuwa ginnaaw bi ku xaramu loolu moom moom sëlmatu kasaab ñu daan woote ak nubuwa nii di wane ne am nañ seen alxuraan bopp waaye daanaka buñ la buñ la ko waxee buñ la waxee seen ay rad lay jàpp wax nañ bi saar wan naasiaati wàccee wan naasiaati xarqan والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا mu ne mu ne lii kay mën naa doon mel ñu ko waxal mu ne والزارعات زرعا فالحاسدات حسدا فالطاحنات طحنا فالآكلات أكلا waaw yu mel noonu ne doon andi ni nga xam day mel ni ay léba ki duppeen lay kooku moom dafa lànk nangu di joxe asaka mu yabal ko ñu wax ziyaad ziyaad ibnu labi ca xadramawt yabal adi ibnu xaatim ca tayyi ak bani asad yebal malik ibnu nuwayra ci bani xantala yebal azzibriqaan ibnu badr ci bani saad moo kañ wax xays ibnu aasim ku ci ne mu yebal la ci eh, ñenn ci bani saad leen xaaj ñi mu yebal leen fe ñi mu yebal leen fe waaye ci genn génn leen yebal ñoom ñëpp kañ wax al-Alaa ibnu al-Hadrami yi mu yebal ko Bahrayn Ali ibnu Abi Talib mu yebal ko Najraan Najraan ba mu ko fa yebalee moom dafa boole di jël asaka yi ak lempo yi ñaari problème ndax ñenn ñi ñu war a joxe asaka ñu ci des jëbbul jëbbul ñu ñu ngi ci biir karangi islam war a joxe li ñuy wax galak galak mi xëy na moom lempo yi léegi duñ sore ñoom ñëpp nag yebal yebal laloowu leen ci biir weer muharram yi waaye nag ci muharram ci la tàmbali yebale bi léegi di yebale ndànk par ndànk naka noonu noonu mu ñoo ñu ñuy jëli asaka yi ci ñin ci ñi nga xam ne dugg nañ ci diini ji war a joxe asaka noonu la yebale nag lenn te ay saraya ngir ñu régler ji ay ay ay ay lëj-lëj amoon ci ay béréb yabal na sariyatu Uyayna ibnu Hisn al Fazari ci weeru Muharram ci atum neuf mu yebal ko ci Bani Tamim boole ko juróom fukki faris yoo xam ne benn muhaajiri yu nekk ci benn lan saar sa la ko sabab bi mooy banu banu Tamim dañoo xeeta giir yi dëkkoon ak ñoom mm, fexe bañ bañ lànk ba ñuy joxe lemp yonent bi yabal fa ñooñu pour ñu lijjanti ci loolu waaye ba fa waaw yaay na ibnu Hasan demee dañoo gaaw làqu daw tasaaroo ci biir àll mu jàpp ci lu mat fukki nit ak ñaar ak ñaar fukki jigéen ak benn ak fanweeri xale indi leen Madina bi mu leen andee ñu yebal fukki nit fukki nit ñu bokk ci seen kilifa ñëw ñu ñëwee woo yonent bi ci kaw yaa Muhammad uxruj ilayna maanaam yonent bi génnal génnal atem génnal ci noonu génn sil fii yonent bi génn ñoom ñëpp ñu war ko di wax mu taxaw fa taxaw taxaw ba waxtu tisbaar jot mu dem julli ji toog ci jàkka ji léegi ba ñuy wax ba mu jàgg ñu feeñal bëgg ndamoonte ak pukkarewante daal di indi seen benn discours kat ku ñu wax xutaarit ibnu xaajib kooka wax ba mu waxee discours bu rafet ba rafetal ba bàyyi yonte bi diggal ku ñuy wax saabit ibnu xays ibnu samaas te moo doon discours katu islam mu jóg tontu ko tontu lu rafet léegi ñu indi seen woykat ku ñuy wax zibri xaan ibnu badr mu woy ndamonte lam man Euh, woykatu islam yi ñuy wax Hassan ibnu Sabit daal di jóg ko tontu ko ci woy yu demee nii yam woy ba noppi gën ko rafet bi ñaari discours kat yi noppee ñaari woykat yi noppi al aqra ibnu habis daal di wax nag xutba katam bi discours katam bi moo dàq wax suñ discours kat bi woykatam bi it moo dàq woy suñ woykat bi seeni kàddu it moo gën a kawe suñuy kàddu seeni wax ak kawe suñuy wax bi mu waxee loolu nag ñu daal di jébbalu ñoom ñëpp yonent bi sallallahu alayhi leen di jox ay may daal di leen di delloo seeni jigéen ak seeni xale kon sariyatu Uyayna ibnu Hisn boobu foofii la mujj bu ñuy wax Xutba ibnu Amir yonent bi yebal na ko ci genn gàddi ci gu bokk ci xosoom ci boru Tabaala ci weeru safar la ko yebal ci atum neuf noonu la yebalee Alqama ibnu Majzir al-Mudliji mu dem ci peggi jidda ci weeru rabiul axir ci atum juróom-ñeent ci gàddaay gi mboole ko ñetti téeméer nit ngir ñu bokk ci éthiopien yi dañoo dajale woon foofu ci pekku jidda euh, di def ay pexe yu ñu doon fexe contre waa Màkka waaye ba mu fa accès bañ ko déggee lañ daal daw tasaaroo loolu mu jël fen mu yebal Ali ibn Abi Talib ci benn xiramu ngir tey ngir mu doon ko màbbu xiram boobu ñu ngi wax alxalas waaye Ali génn ci weeru rabiul awwal ci atum juróom-ñeent mi ngi àndoon ak téeméeri juróom fukk ñu yor téeméeri gileem ak eh, juróom fukki fas mu yor drapeau bu ñuul waaye bañ demee ba tey dañoo daal di dal ci seen kaw dàq leen jàppe fa ak jur jàpp fa ay gileem jàpp fa ay jigéen yu bare kon juróomi sariya yooyu ñoom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yabal gannaaw bu mu delloo madina ba topp gannaaw bu ñaari xare yooyu jàlle mooy xareb hawazin ak ak taif léegi xaswa bi mujj ci xasawaati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga moom la mujj def mooy xaswatu tabuk xaswa taboog mu ngi nekkoon ci weeru rajab ci atum juróom-ñeent ci gàddaay fatu Makka dëgg la bi mu jàllee jasiratul arab bépp moom mokk nañu ci ginnaaw yonent bi benn ñu mokk ci kaw ak ngëm gu dëggu wala ñu mokk ci kaw ak noteel waaye dara lu fay yëngatu luy contre yonent bi moom di gëstu ko foon waaye nag am beneen force bu nekk fële ci boo xam ne dañoo jekki-jekki rek di cokkaas jullit yi te xamuñ lu sabab cokkaas boobu ndax cokkaas gi mu ngi tàmbalee ci euh, ndawul yonente bi loolu ñu reya te mooy alxaaris ibnu umayr al asdi ka ko euh, loolu moo sababoon xareb muta ndax yonente bi dafaa yable moom waaye bañ demee bi ko euh, romain yi déggee dajale moom ñetti junni nit la ñu dajale lu mat ñaar téeméeri junni nit nga xam ni bu bu bu ci Xaalid ibn Walid defutoon ak ñaw akuk yeewte foofe dañ leen di faagaagal waaye nag biñu demee ba rey eh, la muy Zayd ibn Haarisa Jaafar rey Abdullah ibn Rawaha Xaalid ibn Walid bi mu ñëwee ba jiite leen moom da caa doxal ak yeewte daal di xam ne lii buñ jàllee dañ leen di faagagal bañ jeex tàkk ndax dañu tolluwut ñaar téeméeri junni nit ak ñetti junni nit tolloo woon waaye def na ci ay pexe ba daw gi ñu daw ba ñibbi it yëfar yi gëmuñ ndax dàq nañ leen léegi ndax dañ leen seen ñuy arrière ñu jàpp ni lii pexe ger la ñu taxaw ba noonu la su xaalis rocc ko bañ dem seen yoon léegi kon mu mel ni ndawam loolu ñu rayoon mu mu mu yabal euh, sariye boobu ngir lijjanti yi ko kon lijjanti ko wutoon waaye nag ñibbi si gëm ñibbi si waat Madina léegi arab yi dégg gi ñu dégg ni Muhammad doon na dajee ak waa Rom te Rom boobu dañoo jàppoon ni ku fay dem da ngay xaru ji ñu gis ñu ñibbisiwaat ci jàmm dara xewut loolu am na geneen wegeel gum dugal ci xoli arab yi gi ñu wege yonent bi sallallahu alayhi wasallam wet ko mbooloo julli ci biir loolu it giiri arab yi nga xamante ne dañoo toppoon euh, dañoo wéeru woon ci nguurug Rom googu biñ gisee force bii bokk ci arab yi ba noppi feeñe nii ñu ci bare bare dañoo tam tàmbalee xeemam ci ci fàqe fële ñëw féete si ci yonent bi sallallahu alayhi loolu kon dana doon ab dansé boo xamante ne ñu ngi xupp nguurug euh, waa Rom googu ñu nag kon dinañ ci sàkk pexe loolu moo waral daanaka ginnaaw bu xaswatu euh, kii boobu jàllee at lañ ci teg léegi ñu tàmbalee waaj xaswatu mu ota boobu maanaam at lañ ci rek léegi ñuy tàmbalee waaj waajtaay wu rëy rëy ngir bëgg a ñëw dal si si kaw julli di faagaagal leen ngir gis nañ ñu yàq seen seen programme ndax ñu bari ñu leen gëmoon dañoo fàq ci ñoom di di xëy na moo wéru jëfale ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la xibaar yi ñëwee màddina dégg ñuy dégg ñu ni waa Rome ñu ngay waaj waajtaay yu métti ngir dal si ci kaw jullit yi mu doon njàqare lu tasaaroo ci biir jullit yi wax nañ ni Umar ibn Xattaab day nettali ni fa amoon benn mbokk ci lansaar yi ñu dëkkandoo ca mujjug dëkk ba mooy am ca pegg Madina léegi bu kooka xëyee dem ca marché ba liggéeyi mbirum addunaam Umar ibn Xattaab ñëw yendu si fii ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ko fee lu fi xew bu ngoon jotee mu man ko koo leeral bu ëllëgee kooku mooy ñëw yendu si ci yonente bi Omar dem lijjanti yi mbiri addinaam lu fi xew mu leeral si ko wax ne ni genn ngoon mu ñëw fëgg ak doole fëgg ni ko génn génn am na taxaw Omar ba mu jógee dafa tiit ni ko waa Gassan dañoo ñëw waa Gassan dañoo ñëw am jàpp nañu Romain ñëw ndax booba lu xew rek dañuy jàpp ñooñu agsi nañ saa ñu déggee kàddu gu ñu dégg te miinuñu woon kàddu googu rek dañ naan bu wutul Romain ñoo agsi nga xam tiitaange yooyu ñu ngi ko daan dund waaye ba mu génnee mu ne ko lu mu doon ko yonte bi dafa beru ay dafa wacc fase ay waa këram fekk boobu yonte bi dafa am ay rëng-rëng yu doxoon diggante mag jigéen ñi mu beru leen lu mat weer léegi nag ñu jàppoon ni da leen a fase nag am yi daan jógee jógee jógee saam di indi diw madina ñooy dikk gën a leeral ni xiraq la dajale na arme bu réeree dajale na lu mat ñeent fukki junni nit dajale waa ngiru laxm ak jusaam ak ñeneen ñi nga xam ne ay arab la ñu doon ay nasaraan ñëpp topp nañ ci ginnaawam ba agsi na balxaa agsi nañ balxaa te te ci jullit yi lañ jëm si mu doon dansé bu réeré li ko gën a dolliwaat mooy jamono boobu yi jamono tàngoor la jamono mbuye mu tàng lool ni nit ñi nekk ci bekkoor ak jafe-jafe ba noppi daanaka kenn amul dara meññeet yi toll rek ci ñor comme bu doon fii ci Sénégal dañu la ko mën a misaal bu ñu demee ba dugub ji toll ci ñor nii te ñoragul nga xam ne dundub daaw bi jeex na te li ñuy séntu ren excès bi li ñu gënoon a mooy léegi dem ba góob seen i dugub mbay mi génn ba noppi bu ñuy dem fenn doon faa dem mooy seen i xayma waaye teewut loolu lépp nag am na yonente bi gis-gis gis-gis bu mu moom gis boo xam ni moo gën a xereñ gën a sew yooyu yëpp nag yooyu yëpp ñuy gis gis am daf ko féete kaw ndax gis na ne bu waxee ba ba ba tayal mbaa mu wane ci ak manqué lu mu néew néew ci ci ci défendre guerre boobu mboolem li mu defoon ci biir jésur arab dana yàqu dana yàqu ndax léegi xareb fatahu Makka mi ngi door a jàll xareb Hunayn mi ngi door a jàll yëfar yëpp notu nañ benn ñu notu gëm mu doon ak ak ngëm gu dëggu ci seen xol wala mu doon ak notu loolu lépp mu réglé ko ba fii ni tekk buñ déggee beneen force bu jógee fee di ñëw mu ni tekk di ko xaar ci biir Madina bañ accès ak doole fi ñuy jaar fépp it ak moomeel la goo xam ne yeneen station lijjanti woon na ko ba féet ba féetale ko boor ñu jaaraat ci kaw loolu lépp faqaar ko mu jeex loolu la mu yàq jëmmi daxawa islam yi bi mu doon woote bépp day effacé wu léegi loolu gis na ko gis loolu ko gisee kon moo tax mu ne lu métti métti nañ waaj dem fekk leen fañ nekk bala ñu jóg kon loolu moo waral mu dogu ci ne fokk mu jóg dem ci jógee bi mu ci dogoo daal di digal jullit yi ñu waaj muy mu daan def it xare bu mu mosaan di xare ji ñaari daf koy daf koy tawriyaat daf koy lëmal nii nga xam ni mën naa bëgg a jëm penku ba noppi jóg jëm ci wàllu ndijoor ngir ñu jàpp ni feneen xare yu bari ay xare yu bari yi mu daan def noonu la ko daan doxee waaye xareb Tabuk moom da leen leer leen ko wax ni leen fu sori ngeen jëm te mbooloo mu bari ngeen di dajal léegi ni ngeen ko waajal kenn ku ne daal mu wax la ko mu wax leen ko ngir bëgg ñu waajal ko digg digg wàccaay ci biir Euh, ci xare boobu ci la lu bari ci surtu baraa wàcc di ko di ko di ko di di ci soññe den soññ ci xeex yonente bi xeemam loo leen ni luñ man ci ay sarax ak ndimbal yoo xam danañ ko mën a dimbali arma bi nañ ko joxe biir loolu yi biñ déggee kàddu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp ñu jóg wàcc fas yéene topp ndigal li euh, léegi giir yi di ñëw di jóge feneen di ñëw fekk wax na waa màkk it ñu waaj giir giiraan yi nekk ci pegg peggaan yi yëpp ñu wax leen ñu waaj ñëw ñëw madina di ñëw di ñëw kenn bëgguti des ñëpp dem nañ ñu dul ay naafeq naafeq yi daal ñoo fa des ak ñett ñoo xamante ne ay jullit dëgg lañ waaye xaj na it yi àdduna leen gàllankoor ba tax demul waaye ñëpp mboolem jullit yi dañ doon xëntewoo teewee ci xarib xarib Tabuk ba am na ñoo xam sax dañuy ñoo ci yonent bi bëgg mu dimbali leen ci waajtaay mu ni leen laa ajidu maa ahmilukum alayhi waaye tawallaw wa ayunuhum tafiidu min ad-dam'i hasanan allaa yajidu maa yunfiqun nga xam ne bu ñu ñëwee sax bëgg mu dimbali leen ci waajtaay mu leen leen óomalu ma leen dimbalee bu ñuy wëlbatiku seen i bët day dafay rankoñe dañuy dañuy bëgg a jooy ngir am lu leen naqari ci bëgg guñ bëgg a dem te mënuñu dem noonu la jullit yi tegaloo it góorgóorlu it ci wàllu doxi seen i alal kenn ku ne jox la woon Usmaan ibn Affan fekkoon ne mu waajal benn jëgg bu waroon dem saam ñaar téeméeri gilem yoo xam ne nañ ko ba mu jekk ak ñaar téeméeri ugiya waaye lépp daf koo joxe ci biir biir arme bi daf ko da ko sarxe yeneen téeméeri gilem yu ànd ak seen i waajtaay sarxe junni dinaar bi mu indi junni dinaar yonent bi sallallahu alayhi teg ko ci kanamam di ko wëlbati la wax ne Usmaan day defatul lu ko lor ginnaaw Ousmane di sarxe di sarxe ba lim sarxe mat na juróom-ñeenti téeméeri gileem ak téeméeri fas te bokkut ak lim joxe ci xaalis euh, Ousmane dugal na ko ci biir ger boobu Abdourahman ibn Awf andi na ñaar téeméeri ugiya ci xaalis Aboubacar andi lam amoon ci alal lépp jant bi ni ko loo bàyyee sa waa mu ne ko yàllaa ko yonentam la bàyyee jant bi ni ko bàyyee ngeen ko doy jox booba mi lam am lépp bi mu ko dajalee mi ngi toll ci ñeenti junni ñeenti junniy dërëm mooy ki jëkk a indi alalam it gannaaw bi yonte bi wootee arab yi Umar ibn Xataab xaaj lam amoon bàyyi fa genn wàll ga ak bàyyee ko waa këram genn wàll gi mu indi ko ci yonte bi sama ñu ñëwee it yonente bi rafet loolu ko loolu yi mu def Abbas indi alal ju bari Talha Saad ibn Ubaada Muhammad ibn Maslama ñëpp ku ci ne indi nga mbooloom alal Asim ibn Adi indi na juróom-ñeent fukki aw soq Euh, xañ na wasaq moo ëpp bërigo tuuti bu doon wax daal da nga wax ne juróom-ñeent fukki bërigo tàndarma andi na mbaa moo ëpp am na nit ñi continuer di kenn ku ne di andi nga mën ba am na ñoo xamante ne benn mudd li ñuy mën a andi nii mbaa ñaari mudd waaye ku ne rek la nga mën lu mu néew néew ko jigéen ñi seen jaaro nopp ak seen lam yi ñu daan takk ci seen i tànk jaaro jaaro loxo yi lañ ca man ñoom ñëpp dañ ko dajale andi la ko yonent bi sallallahu alayhi dugal ko ci woote boobu mu woote ñu ci dul naafeq yi daal nayuñ ci seen alal naafeq yi mooy ñu alxuraan di junj ni alladina yalmizuuna almutawiina min almuminina fi sadaqaati walladina laa yajiduuna illa juhdahum fa yasxaruuna minhum ñooñu naafeq yi la a junj ci aay bu bi léegi nag noonu lañ waaje yeneen bi daal di wut daal di fab Muhammad ibnu Maslama bàyyi ko ci Madina am na ñu ni Siba ibnu Urfuta la fa waa këram mu dénk leen Ali ibn Abi Talib daan ni ko na nga fi toog waaye ba mu fa toogee naafeq yi di ko manquel ba loolu dis ci moom toogaay bi mu toog mu mel dañ koy wax ne ko da ngaa ragal da ngaa manqué da ngaa mu jóg dem dabi yonent bi sanson yonent bi ne ko mukk dellu ndax bëggoo bëggoo ma def la ni Moussa defoon Haroun bëggoo mel ni mel ci man ni Moussa meroon ni Haroun meroon ci Moussa xanaa bëggoo ko mel ci man daal ni ko ab yonent daal moo dul am sama gannaaw waaye taxawaay bu Muusa Haaruna taxawoon féete fu mu féete woon Muusa rek laa bëgg nga féete woon la ngeen di woote nag mooy laa nabiyya ba'di noonu yent bi génn bisu alxames mu jaar ci wetu càmmoñu Madina jëm Tabuk booba nag armo bi rëy na lool ndax mat na fanweeri junni nit benn armo jullit bu mas a mat loolu amut benn yoon boo xam ne mas nañoo dajale lu mat fanweeri junni nit lu ci lu xarit tubaab boobu amut waaye jullit yi li ñuy jox maanaam alal ji ñu doon joxe li muy bari bari bari rek taxul ñu mën a mën a waajal arme bi dëgg-dëgg waajtaay yoo ci war ndax ndax bari waayu mbooloo moo tax ay jafe-jafe am na ci lool ndax fukki nit ak juróom-ñett daanañu awante genn gileem mu kii waree ba sonn mu kii war daanañ dem bay lekk xobi garab yi dama dem ba séenatuñu neewee ngir coono bu bare ak euh, mar bu tar looloo tax ñu di ko wooye jaysul usra jaysul usra lañ koy wooye ngir jafe-jafe yooyu wax nañ ñi ci yoon wi lañ rombee kër yi samut demee di wëgg ca teen ba yonente bi ndoxum teen boobu bu leen ci naan bu leen ci jàpp te ku ci mooñoon dara it la nga mooñoon na nga ko jox jur gi waaye bu ko jëfandikoo ba noonu la yonent bi rombi foofu ci kër euh, diyaaru samut yooyu muur boppam daal di gaawal dox bi ba jéggi xur woowu nañ ne dem nañ ba mar yu tar lool ñu jàmbat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla yàlla dal di wàcce taw ñu naan ci ba man di duy ci seen i mbuus yóbbaale dañ ca ajo woon de ba jege taboog nag la leen yonent bi ni ëllëg da àgg Tabuk bala ngeen fa àgg bu ngeen fay àgg nag dina fekk euh, naaj wu tàng waaye ku fa àgg nag ndox ma bu ca laal dara ci ak siw ma Muaz ibn Jabal nee na am ñaar ñoo xam ne ñoo fa jiitu bañ demee naan ca bi yont bi ak seen ni leen ndax laal ngeen ci ndox mi dara ñu ne ko waaw mu daal di dal ci seen kaw wax leen wax wax dal yonte bi mu ñëwee daal di tànk tuuti ci ci ndox mi daal di teeylu ba ndox mi xond xond bi dajaloo mu sëlëm ci kanam raxas raxas loxoom bi mu dajalee dajalee dara ci ndox mi raxas ci ay loxoom sëlëm kanamam daal di koy delloo ci ndox ma moom ko ci delloo bët bi daal di mel ni dafa dafa wal dañ ko walu daal di génn génn doole nit ñi daal di wëgg daal di naaw mu ne mu ne mu ne Muaas ibn Jabal boo guddee fante fii fii da nga fi romb fekk mu doon ay tool mu mel ni aljanna maanaam tool tool yéen noonu lañ demee nag ba wàcc Tabuk waaj nag ngir daje ak noon yi bi daal di jóg def benn xutba bu jot a jot waar leen soññ leen ci lii nga xam ne yiwu adduna ak alaxira ngi ci biir mooy tandikuloo leen xupp leen dëgal leen ci aljanna tit ba seeni pas-pas yëkkatiku bu kawe kawe ba ci manqué si gañ manqué woon nag lañ doon yëg ci ak manqué si lépp dañoo mujj yëg ak dëgër ci seen bopp ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ak ñoom noonu ba noppi ba ci yëg-yëgu manqué ki yóbbal beeg coono yeeg yëpp dañu mujj fàtte ko waaye bi mu waxee ñoom ba noppi nag bañ taxaw di xaar noonu yi romb ak ña ànd ak ñoom biñ déggee ni yonent bi jóg na di ñëw tiitaange dafa dugg seeni xol ba tax ñemewuñu ñëw dañoo daal di tasaaroo mu mel ni tasaaroo bañ tasaaroo nag loolu dafay daal di indilaat jullit yi ab cër bu rëy ci ci wàllu politique ci ni ko nit ñuy dégg ndax day mel ni arme bi gënoon a rëy ci adduna bi ñëpp di leen ragal Mohammed dem na pour jàkkaarloo ji ak ñoom ñoom ñu arrière ñu ñu woon ragal googu ñu ragal am na leneen lu muy liggéey loo xamante ni guerre lu bari ci ay guerre mënu ko taxaw tiit gañ tiit ba arrière ba ñemewuñoo xeex ak moom lam liggéey guerre yu bari mënu ko mënu ko woon ndax bi loolu jàllee ku ñuy wax yaxna ibn rawba dafa daal di ñëw daal di def euh, musaalaha ak yonent bi sansom maanaam nangoo dugg ci biir karangeem di ko jox lemp ahlu jirba ak ahlu ajrah ñu ñëpp dañoo nangoo joxe lemp dugg ci biir karange yonent bi sansom yonent bi bindal leen aw kayit bind ci bismillahi rahmani rahim هذه أمنة من الله ومحمد من نبي رسول الله ليحنى ابن روبة وأهل عيلة mun lii kulëre la gu dox gu jóge ci yàllaa ko yonentam jëm ci Yaxna ibn Rawba ak waa Ayla muy seeni gaal ak seeni seeni ay sayaara ay oto lañ ko mën a tuddee jamono bi ñu xam ne boobu amagut waaye mooy giléem yi ñu sëf seeni marchandise ci géej gi ak ci jéeri ji lépp ku ko gis na xam ni kóllëre yàlla la ak yonante bi bu leen kenn dogale bu leen kenn tere yoon wu ñu war a jaar maanaam kaaraanga jooju la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bindal ñoo ñi daal di yónni Xaalid ibnu Walid mu jëm fa ñuy wax dawmatul jandal mu boole ko ñeenti téeméeri nit ak ñaar fukk ci ay gawar ni ko léegi mu ko yebale Xaalid ñëw ba mu ñëwee euh, seen kilifa dajeeg moom waxtaan ak moom waxtaan ak Xaalid ba nangoo musaalaxa ak moom ci ñu ñu bañ a tam jox ko ñaari junni gileem ak juróom-ñetti téeméeri bopp ak ñeenti téeméeri mbubbi koŋ ñeenti téeméeri xeej ba noppi nangoo joxe lemp boole si jox yi yëpp ba noppi nag nangu nangu léegi ak mu jot dana nanga joxe joxe lemp ci loolu lañ def musaala léegi nag ci biir loolu nag giir yi arab yëpp daal di wóolu nag ni euh, jamono bii mu toll daal jamono yi Muhammad la ak i ànd na ba tax nag kenn ci taxaw di ko dir mbagg mbaa ngay jéem a woote lenn lu bokkut ak ñëw marlonte ak moom jàmmoo ak moom mais loolu amee nag yonente bi euh, daldi di waaj ngir dellu madina moom la yàlla wax ci alxuraan ne wa kafallaahu al muminina al xitar muy xeex bi nga xam ne war nañ ko xeex yàlla fegal na leen ko bi ñuy dem am na ay naafeq yoo xam ne dañoo jógoon pour bëggoon bëggoon a coup d'état yonent bi sallallahu alayhi nga xam dañoo dañoo masqué woo muur muur seeni kanam waaye yonent bi yebal ku ñuy wax Xosayfa mu ñëw bi ñëwee ba ci ñoom mu tiitloo leen ñu daal di gaaw daw dem delluwaat ci biir mbooloo ma waaye yonent bi wax seeni tur direct diw ak diw diw diw la nangam lañ bëggoon daal di wax la leen taxoon a jóg loolu mooy wax xam mu bi maa leen yanaaloo jooju alxuraan junj bi bi demee ba bay seen seen madina rek daal di wax ne lii daju daju la doj la wow sopp nanu ko mu sopp na bi nit ñi déggee ne yonent bi sallallahu alayhi mi ngi ñëw xale jigéen ñeeg ñëpp jóg di ko gàttandu di wax ni tala al badru alayna min saniyaatil wadaa wajaba shukru alayna ma daa lillahi daa a nga xam ne ñu eh, feeñal ci seen mbétti lool léegi mu ngi dellu si madina ci weeru rajab ci atum juróom-ñeent ci gàddaay gi eh, diir bi mat na juróom fukki fan am na ci ñaar fukki fan yoo xam ne foofa ko sax ci biir te Tabuk fanweeri fan yi ci des nag mooy yim jaaxal ci dem gi ak dëpp gi ndax ne fukki fan ak juróom dem fukki fan ak juróom dëpp ger boobu ñëpp génnoon nañ maanaam ku doonoon ab jullit bu dëggu rek génn ka kenn desul ka des daal ku leer lay doon ne ab naafeq la wala mu doon boroom ngànt lu leer loo xam ne dafa am dafa am ngànt ba dina ngàntal ko léegi nag am na ci bi yonent bi sallallahu dafa dem ca jàkka ji julli fa ñaar rakaa noonu baaxoo na def sax mosoon dem ba ñëw day dem ca jàkka ji julli ñaar rakaa toog nit ñi ñëw di ko sargal si ñi nga xam ne ñooy naafeq yi demutoon it mat nañ juróom-ñett fukki nit rek nangam ñëw ñoom itam di di lay lay lay yu bokkut kenn ko ne ñëw joxe aw lay rek daal di ci yàlla ne ma nangam ak nangam moo ma moo ma téye woon moo tax demuma yonte bi nangu leen li ñu wax ci kaw la ne ca biir nag mu bàyyi ko ci loxo yàlla ku ci wax rek mu jégalu la yàlla ne yàlla yal na ko jégal am ci ñett ñoo xam ne nag ñoom eh, dañoo ñëw te ñoom ay jullit dëgg lañ lay fekku leen ci ku ñuy wax Kaab ibnu Malik ak Maraara ibnu Rabia ak Hilal ibnu kaam moom moo koy faral di natt nettali di nettali ni xare bu yonente bi mas a xare rek fekk naa ko ba mu des Tabuk daañu xanaa xare Badar te xare Badar moom yonente bi def forcé wutoon kenn ci dem da doon génn noonu rek doon gàllankoor yi ab jëgg far yàlla dogal diggante mag noonu ya xeex am ci waaye xare ba mu a xare waat fekk naa ko ba mu bii daal bii nag bi ko yonente bi def may waaj di fomm di waaj di fomm naan saa bu ma bëggee dem dinaa mën a dem saa bu ma bëggee dem dinaa mën a dem di ko waaj di fomm ba mujj naa ñemeetuma dox ci dëkk bi ndax ñi ma fiy gis moom ñaar lañuy doon kenn ki ku yàlla gàntal bu wér la ngir dafa am tawat ju wér joo xam ne am na ngànt ki jëles naa feq bu wóor la boo xam ne kenn nattabi ak naa feq gisuma fi daal sama morom ci dëkk bi na ma nekk ci loolu dégg naa mu ne moom mooy mooy natt wax na ne yonte bi sama sama doomu demee ba àgg tabo wax na ne maa faale Kaab ibnu Malik dafa am lu lu Kaab ibnu Malik def nee na am ku ko ne kooku daal toog fee xoolum njabootam soloo ko summi ko ko xubaay nee na Muaas ibn Jabal jóg ni ko yow li nga wax baaxut ni ko yonente bi ñun de kooku xamuñ ci moom lu baax nee na yonente bi ci waxaatul nekk te boobu ba jóge fa ñibbisi ma dégg ñu ne yonente ma tàmbali di xalaat lu ma ko war a lay nee di xalaat di xalaat di xalaat ba dégg ñu ne yonente bi agsi bi mu agsee mbooloo mépp dem ci jàkka ji julli fa ñaar raka mbooloo mi dem di ko sargal ñii dem di lay mat nañ juróom-ñett fukki nangam nee na bi ma ñëwee ba jub ko nag la lay yëpp dañ ci sama xel ma ma doogu ni daal su ma demee naa ko wax dëgg rek bi mu ñëwee nee ñu rang di nuyoo di wax ku ku ku lay rek yonte bi jégalul la yàlla nee ba ma jub ko mu muuñ muuñu ko mer daal dina ma taar di ma kaay nee na ma ñëw mu ni ma lu la teree ñëw ndax waajo woon ba ñëw gisuma la woon nga waaj ba jekk nee na ma ne ko yonente bi su ma nekkoon ci kanamu kenn ci nit yi yi day la ma koy lay ba mu ci ci meram danaa ko xam waaye nag ragal naa su ma la waxee lu dul noonu yàlla wàccee aaya alxuraan di ma gàcce wax dëgg yàlla bis bu ma mas dendal tey jii laa gënoon mën a dem damaa dem rek yonente bi ah kii nag moom wax na dëggam kon nag toogal ba ba yàlla attidal ci yow nee na bi ma ba ba dëpp samay mbokk topp ma naam yow xanaa da nga yow mënoo woon a yow noo lotte ba lay sax mënoo boo waxoon yonente bi boo ko layoon fi doon jégalu gi mu ne jégalu yàlla képp yàlla mën la cee jégal nee nañu dima dal dima bëgg a dëpp weddi la ma waxoon ci kanam yonente waaye ginnaaw bi man de ndax lii wax ne am nañu ko wax nee ñu ma waaw diw ak diw daal may tuddal marara ibnu ibnu rabi moomu ma xam ne ñooñu ñaari ñu baax lañ ñoom ay relatif lañ ñu amee kon baax waaye ginnaaw bi yonente bi dafa digle ñu amar goo leen ni bu kenn waxate ñoom bu leen kenn tuddati jullit yépp weddi leen ba wax na ne Abu Xataada bi ma gënoon a xaritool dem naa ba yéeg ab miiram ñëw bi ma ko ne asalaamaaleykum yëngal sax ñaari tuñam ngir tontu ma def ko ma ne ko ataalamu anni uhibbu llaha wa rasulahu xam nga ne man mi ko bëgg yàlla ak yonte mu ni cal mu waxaat ko ko mu ni cal bu ma ko ñetti mu ne ma allahu wa rasuluhu alam yàlla ak yonte ñoo xam fekkee bëgg ngeen nee na ma jaaxle daal di génn nee na noonu lañ demee lu mat ñeent fukki fan yoo xam ne kenn waxutal ñun yonente bi yàppale ci nun ay ndaw ne buñu àndati ak seen sax ndax wax yu gi waxul dara léegi bi mu ñëwee ci man nee na ma ne leen ndax dama ko yow ci ñu ne ma déedéet waxul nga ci ko waaye nee na bu la ànd ak moom nee na ma ne sama ma ne sama soxna demal seen kër ba ba yàlla àtte ci suñu mbir mi dara ba mu demee ba juróom fukkeelu guddi gi ci la yàlla wàccee aaya alquran yi dal di leen di jéggal muy wax ala salaasati alladina xulifa mu tàmbalee sa laqad taaba allahu ala nabi wal muhajirina jël ci la tàmbalee ba mu agsee ni wa ala salaasati alladina xulifu xata ida daaqat alayhim al ardu bima rahubat wa daaqat alayhim anfusahum wa dannuu an laa malja'a min allahi illa ilayh summa taaba alayhim liyatuubu inna allaha huwa tawaabu rahim mais bi aaya di wàcce ci fajar gi nag mbooloo mépp yooxu nee na ka ma jëkk dégg muy yoox naa ma afshir yaa kaam ni ma bégal yow kaam bi ndax yàlla jégal na leen kooka menn mbubb laa amoon te dama ko jox ni ko may naa la daal di ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma fekk mu bég loolu bu ma saan bég neen day mel ni eh, weeru guddeeg ñeent taaru nee na ma ñëw mu mooñ ne ma bégal bis bi moo gën ci yow bala su ndey jot ak léegi nee ma ne ko njëgal ndax ci yow la bàyyi ko wala ci yàlla mun ma ci yàlla la bàyyi ko nee na ma ne ko kon nag ginnaaw yàlla defal na ma lii te kaw dëggal gu ma la dëggal ci la ma defalee lii maa ngi dogoonte yow fii bis ni ki tey ni tuuti mu waxate aw fen daani waaye bis mu wax yente yow sallallahu alayhi wa sallam loolu yi ak tey day xuuma xuuma ko ci natoo ak dëgg ni ma ma ni ma natoo ni ma natoo ci ak dëgg maa mënatumaa wax leneen lu dul dëgg def kon loolu mooy ñooñu euh, ñi nga xam ne dañoo wuute woon xare bi ba bi biñ ñëwee wax seenu dëgg ndax duñu ay naafeq ay jullit la waaye mu ñu sant naa yàlla ci dëggal gi ma dëggal ndax ñoom mboolem ñi ñëwoon lay day aay bu yées ci bi yées ci aay la yàlla wàccee seen kaw ndax dafa wax ne innahum rijsun wa ma'wahum jahannam kon noonu la xareb Tabuk demee ñoo ñii daa mel ni ñoom la yonte bi jubloo junj ni inna bil madinati rijalan ma sirtum masiran wala xataatum waadiyan illa kaanu maakum aba xabasahum al uzr leen madina ay nit a ñoo xam ne xur bu ngeen dugg ak jéego bu ngeen jéggi rek ànd nañ ko yéen ndax seen yéene lañu ànd ak yéen moo tax loolu mooy mujjug mu mel ni xare la boo xam ni indi dolli na geneen kàttan ak geneen wegeel ci jullit yi naafiq yi nga xam ni euh, ñoo doon bëgg it euh, aw ay wu ñëw dal si ci kaw jullit yi naafiq yooyu foofu lañ doxee euh, deltu ginnaaw bu baax a baax ndax ci biir biñ demee ci biir tiitaange jiñ ci doon naan léegi waaroom ñi ngi préparé pour xare jullit yi rek ci biir situation yooyu ci la naafeq yi programme jàkk jàkk joo xam lañ ci jublu lépp mooy bëgg ya ñuy nose ak programme yi ñuy waxtaane ak la ñuy def jullit yi duñ ci xam dara bañ ko defee doon woo yonente bi ngir bëgg mu ñëw julli leen ko yonente bi yeexi julli googu ba dem taboog ba ñëw bi mu demee taboog ba ñëw nag yàlla wax yu ko lañ lañ ci jublu mu dem màbbu jàkk ji ci loolu yi ci la alquran di waxe ni afaman ussisa bunyaanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin xayrun am man ussisa bunyaanuhu ala shafa jurufin xeerin fanhaara bihi fi naar jahannam léegi aaya boobu yi jàkka jooji la ko la ci alquran jubloo junj ñu di diraar masjidu diraar noonu la demee kon bi mu ñëwee ba màbbu jàkk jooju léegi naafeq yi am na tiitaange ju rëy ju dugg seeni seen xol euh, mu mel ni saaru baraa la ca ëpp ci mbirum gerbo bu la wax am na ci lu wàcc nag jëkk ger bi tàmbali am na ci loo xam ne ginnaaw bu ger bi jeexee la wàcc nga xam ne lu ëpp ci situation yi ger bi dal ak gàcceel bu mu gàcceel naafeq yi ak leeral ngëneelul ñi doon jaxaar ak ñi sellal ak nangu gu muy nangu ak tuub ci jullit yi dëggal yi ak euh, génn gi ñu génn euh, ci dem ànd ak yonente bi ci loolu mu doon woote ci xaswatu Tabuk gàcceel it ñi nga xam ne dañoo wuute woon xare bi yooyu yëpp saar wi euh, leeral na ko xew-xew yi ëppaat solo ci xew ci at moom nag mooy ginnaaw bu yonente bi jógee Tabuk am na ku ñuy wax Huwaymir al Ajlaani euh, rëbbante na ak soxna ci at moomu ci la jame jigéen euh, jigéen ji bokk ci waa Xaamidiya dafa ñëwal dafa ñëw reconnaître boppam ne dafa njaalo mu ginnaaw bu mu feralee doom ci yonent bi dégg ñu jam ko ci at moomu ci la Najaashi buuru Éthiopie faatoo yonent bi ko foofu yi ci mat yi julleeg Riyad julleeg fàddu ci at moomu ci la Ummu Kalsoom doomu yonent bi sallallahu alayhi wa faatoo yonent bi am ci njàqare lu tar ba wax Usmaan ni ko su ma amoon keneen la ma amoon ci at moomu ci la njiitul naafeq yi di Abdullahi ibnu Ubay faatu ginnaaw bu yonent bi jógee Tabuk yonente bi jéggalul ko yàlla jullee ko waaye ba mu koy bëgg a jullee nag Umar ibn Xataab doon na ko gàllankoor waaye yonte bi dogu ci jullee ko ngir xañ na am na doomam joo xam ni dafa doon borom pas-pas ci julli di lool ba xañ na yonte bi am ci moom kersa ba mun koo woon a ñàkk jullee waaye gannaaw ba mu ko jullee it bi alquran wàccee dafa ànd ak Umar ibn Xataab ci xalaat ba mu yoroon wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala ci weeru sil qaada wala sil xijja ci jëmmi at moom muy atum neef moomu ci la yonent bi yabale Aboubacar mu dem jiite ji àgg ci Makka ngir won jullit yi dëgg-dëgg yi war a aje léegi ci at moomu ci la njëlbeenu sortu bara a wàcc pour wane ne gépp kulëre goo xam ne seqoon nañ ko ak yéefar yi dañ day jeex day jeex ba ni ko bi ay wi wàccee ne baraatum minallahi wa rasulihi ila alladina ahadtum min almushrikin ci la yonte bi yabale Ali ibn Abi Talib euh, mu dem ba mu demee dajeeg Abu Bakar Abu ni ko amir nga wala maamur Ali ni ko déet maamur laa mooy da da laa yabal ngir nga jiite si wala da laa yabal ngir nga topp ngir ñu jiite la nga topp sama ginnaaw mu ne ko déet man dañ maa yabal ngir benn mbir rek waaye ci sa ginnaaw laay topp biñ demee ba ci bisu Euh, bés bu mag bi bésu tabaski bi ci la Aliyun jógee ci Jamra daal di déclaré ndigal loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ni képp koo xam ne amoon nañu moom colère seqoon nañ ko moom delloo nañ la ko téyewaat téyel sa colère ñeenti weer nag danañ leen ko bàyyi ci kanam ñeenti weer yoo xam ne léegi benn problème du waaye nag bu jàllee nag colère amatut amatul suñu diggante amatul diggante ab jullit ak yéefar ñi nga xam ne daal ñoom defuñ benn benn complot contre jullit yi ñu moom kuréel gañ na ñoom diir bi bu fekkee ëpp na ñeenti weer mën nañ leen a bàyyi bañ àgg ci date boobu mu dee a waaye nag boo xasee jeex jeex kuréel ak jullit ak yéefar seqatuñ ko. mel ni loolu. ab déclaration la bu ñuy déclarer rek ci ne jaamu xiram dafa war jeex ci biir jasiratul arab léegi ginnaaw bu lii jàlle jeex Abu Bakar foofu la déclaré daal ni kon ginnaaw si nag bu fi kenn ajati bu kenn wërati kaaba gi ab mushrik te mooy ab ab kenn kuy bokkaale gëm gëm benn diine bu dul diine yàlla bi lu weesu tey buñ la gisati ngi wër kaaba gi naka noonu di wër kaaba gi def yaramu nen bu ko fi kenn defati ginnaaw si tey ni kuréel kooku ñu seqoon nga xam ne dañ leen di bàyyi ñuy nekk ci lañ nekk yéen nekk li nekk waaye seetlu nañ ni daanaka kuréel la gu ñuy wax ni jullit yi ñoo koy jéem a matal waaye ñoom matal mataliwuñ kuréel bi aay di wàccee ni léegi kuréel amatul seen diggante ñoom mooy point définitif ba nga xamante ne léegi day déclaré ni jaamu xaram jeex na dinañ islaam fi mën a nekk kooku mënul nga seet na def waaye kuréel amatul ci suñu diggante mu mel ni guerre yi yonent bi sallallahu alayhi doon guerre nag dafa am ay dégg ay yuñ ci gise gis-gis yooyu kon dañ ci leeral ay point ay tomb ni tuuti mooy la ca jëkk mooy danañ ci gis ñawug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu militaire nga xam ne ni mu doone sangub yonente yi ci ak nubuwa bu ñu indee ay plan de guerre képp indi ay militaire noonu lay doone seen ndax raw gum leen war raw ci eh, plan de guerre akuk ñaw akuk takku akuk akuk dogu ak ak ak ni muy programme ab armam noonu gis nañ ne ger yi ginnaaw bu ñu xamee ñaw googu na fi ger ger yi yontu sansam doon ger gis ci la indi jàmm akuk dal ci biir jasirul arab ci biir goxub arab yi ci la ci indi jàmm akuk ko jiitu benn sécurité amutoon ñii dañuy làqutu fii di jël jurug jàmm ñii di bocc seen i jaasi guddi songu si ay nit dal ci seen kaw nangu seen i alal def naa ay gerte amoon ba daj fi kapp yi yontu sansam doon jihaad li mu doon réglé gis nañ ci point ni réglé na ba jàmm ni tekk ci biir jasiiratul arab ginnaaw bu loolu jàlle gis nañ ci it ne sose na ci ab kuréel boo xam ne li mu leen xamal ci ay plan de guerre tax na gannaawam daje nañu ko waa Perse dajeeg Romains yi ca Irak ak ci Sham waaye raw guñ leen raw ci ay yoone guerre ak xam-xam bañ ci am xarañ gañ ci am tax na ñu dàq leen ci suuf yi ñu dëkkoon dàq leen ci seen i kan nangu seen alal gañe leen nga daay lu métti te fekk civilisation yi ci ñoom la jëkke loolu lépp ñu ngi ko jàngee ci guerre yi yonte bi sansan doon guerre gise nañ ci ni jullit yi seen suufas dëkkuwaay yokkoo na ci problème yu bari yu ñu daan jànkoonteel ci wàllu dëkkuwaay ak wàllu dund ci biir ger yooyu ci la rek yow niñ jàppe woon guerre muy léegi giir alali jàmbur ak rey rey rey rey koo xamante ni ëpp ci ëppeelu dala képp lay tegaw tooñ nit ñi akuk mbeetee kuk jalgati ak kii def maa rayaloon sama mbokk dinaa rey ci moom téeméer nit maanaam yu bon bonaan yooyu yëpp gis nañ ni guerre bi yonente bi sansom jihaad ji yonente bi doon jihaad dindi na ko ci xeli nit ñi ba soppi xarib islam muy xare bopp dafay ñëw di indi dëgg ngir taxawal ko ci àdduna léegi taxawal dëgg woo xam ne ki am doole ak ki néew doole ñoo bokk benn taxawaay bu ñuy taxaw ci kanam dam na ba indi ay indi indi ci ci ci ay kii ay ay loi yoo xam ni jaahil yu jëkk yi xamuñ ko woon jaahil yi jamono bi ñu toll it xamuñ ko yonent bi sam daan wax ni bu masaan préparé ab ab arme ba ñu war a dem danaan leen dem leen nag ngeen xeex yi ci yoon yàlla waaye nag yow mi jiite guerre bi maa ngi lay dénk nga ragal ak ragal yàlla yi si jëmi bopp di ko dénk ñi nga àndal ci ci jullit yi xare ji leen ci yoonu yàlla xare leen ak ñi wedd yàlla waaye nag bu leen sàcc bu leen wor bu leen mitiital nit mitiital mooy nga rey nit ba noppi dagg ci moom ay cër mbaa nangam nangam yooyu yëpp baaxul bu leen rey xale na ngeen di jàpp ndal te bu leen jaxel jigéen bu leen ko rey bu leen fekk ku beru ci ab béréb di fa jaamu yàlla yoonam nekkul ci dara yëpp ngeen di ko rey màggat gi dem ba jeexal yoonam nekkatul ci adduna yi bu leen ko rey bu leen fekk ab gàtt ngeen di ko rendi bu leen yàq mbayum jàmbur bu leen daaneel tabax jàmbur bu leen dagg ay garab yii yëpp yonent bi sansan daf ko indi mu doon ay luwaa yu leer yoo xam ne daf koy tere la nga cay def daal da ngay dem ba eh, ba ba ba mu sës fa nga doon ko def waaye loolu tere la kom nag ba mu fa sësee mooy lu mel ni xarit ba ni nadir digle gam digle woon ñu dagg garab yëpp dafa sës waaye ay luwaale yu leer yoo xam ni ku amub certitude da nga xam ni diine dafa ñëw ngir intérêt doomu aadama waaye du intérêt kenn nit du intérêt ñaar nit du intérêt ñett nit du intérêt ñeent nit lépp lu ñuy déggale ci xeex yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon xeex ginnaaw bi yooyu yëpp jàllee nag xol yi dañu daal di ubbiku tàmbulee dégg diine xam li seen njariñ la buñ ko xeexee seen njariñ la bopp dañuy xeex moo tax ginnaaw bi yëpp jàllee dañ doon fàq nag di dugg si ci diine ji def bari mbooloo lu ne nii rek ab délégation ñëw lu ne nii ñëw nit ñi ñooy waa barab sàngam dañuy ñëw di seere ni yàlla rek buur Muhammad yonentam la nangoo jaar ci diine islam kon yooyu yii mooy jébbalu si yooyu euh, délégation yi doon jébbalu si euh, ci waxtaan yi ñu jëm euh, danañ ko ci waxtaane door a àgg ci mujj dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, yàlla na yàlla defal ak dégg akuk jariñu euh, yàlla na yàlla defal ak dégg akuk jariñu yàlla na yàlla defal ak dégg akuk jariñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu